wàllum liberté d'expression manifestation yi nga xamante ne ah, dafay daal di am ah, bavure policière yi maanaam takku der yi nga xamante ni souvent dañuy dal ah, ci ay manifestants ba nit ay nit di ci faatu wante tamit prisonniers yi ba génne adduna ci biir prison yi torture yi ci biir prison yi ak yeneen i ponk yu soxal actualité bi daa ñu ko aborder ak kile di Alassane Seck nekk secrétaire exécutif bu Ligue sénégalaise des trois humains ñu koy nuyu di ko dalal jàmm maa lay nuyu eh, di nuyu waa comment dire groupe euh, comment dire consulting mhm. promo consulting mhm. dem di leen nuyu di leen ci invitation bi ngeen invité Ligue sénégalaise des droits humains mhm. euh, tey jii Alassane Seck kon ñu lay remercier bu baax a baax ci sa disponibilité Ligue sénégalaise des droits humains lan moo ko tax a jóg jërëjëf waaw loolu moom laaj bu am solo la parce que comme li nga wax rek ñun mag du du nekk ci liggéey ki nen fay li ñu gis daal moom mooy ñun ci suñu jikko ak suñu caractère suñu tempérament dañu gis ni dëkk bi bari na injustice bari na ñu ne noot di jaay leen doole ñu nag ñun depuis presque trente ans ñu ngi liggéey ci loolu di fekkee ay bavure ay erreur judiciaire ay euh, jaay doole yu bari Sénégal mu nekkoon loo xam ni dafa nekkoon lu métti am noo yaa presque trente ans boo ak léegi nag ñun sunu sunu xeex bi yëpp mooy euh, en dehors suñu liggéey bi xam ne moo la jox suñu li ñuy dundee ak suñu suñu lu ñuy sagoo mooy lu am activité parallèle en tant que militant des droits de l'homme naturellement mm-hmm. ñu ne dañuy xeex bokk ci association boo xam ne day xeex ak ak yelleef. doomu adama yëpp nag muy tubaab muy chinois muy sénégalais loolu daal mooy sunu liggéey principalement. mais mais ligue sénégalaise des droits humains kañ kañ lañ ko sos exactement. waaw concrètement ligue sénégalaise ñu ngi ko sos 2010 juillet 2010 ay avocats ñoo ko sos au départ. Mm-hmm. Assane Dioma Ndiaye ak ay Yaare Fall ay Youssou Camara ñu bari ñoo xam ne amoon na sax ay magistrats am na sax ay magistrats bu ba léegi sax ñoom ñoo ko départ sos ko. Mm-hmm. loolu nag man ma nekkoon na rajo en 2000 enfin avant 2000 en rajo. ba 2014 ma liggéey ba retraité IPRES daal liggéey man ba retraité gis ni daal liggéey bi may gis Ligue sénégalaise par hasard nag. Mm. Ligue sénégalaise dafa am siège am sama kër. Mm. mu tombé. ba ndax Assane Dioma sama xarit la woon mu amoon appartement bu mu jëloon foofu ci kaw sama kër donc ma nekk Norado. Mm. ba 2014 ma jël retraite bëgg nag consacrer sama temps yëpp ci liggéeyu ak ak yelleef. Assane Dioma nekk fa donc dëkk ma dëkk ak moom. depuis 2010 man ma dëkk 2014 nag 4 ans ma ñëw daal ne ko dama bëgg gën a jege si liggéey bi gën a nekk sama kër di liggéey donc ma dem jóge rado ci jàmm ak salaam samay xarit lan samay rakk la mais loola jëlee rado yóbbu léegi sénégalais jàmm rek jàmm rek jàmm moom mooy ñoo bokk bi liggéey bi mais man dama xalaatoon naan daal je serais plus à l'aise ligue sénégalaise ci samay samay xalaat hmm. sans rek sans rek may xëccoo wala may werante wala may polémiquer sama jikko àndul woon daal ak xëccoo donc maanaam mais expliquer ñu. non non kooku nag ça c'est des choses nekk moom interne. interne et personnel. <laughs> maanaam nga dem ba gisatoo sa bopp ci ci ci rado. très bien loolu la voilà tu as compris. tout seul léegi nga dem rejoindre. léegi waaw waaw parce que ñun kenn fayuñu si xaalis bi muy rado muy liggéey kenn fayuñu dërëm. militant la ñu rek militant des droits de l'homme ah ñu foog droits de l'homme yi xaalis bu weextaal lañ leen kon ah. affaire bi la bénévolat la surtout ñun ligue sénégalaise nag xam sax amoon ay projet yoo xam ne parce que rajo nekkoon na ba nekk ONG professionnel hmm. rajo comme Amnesty noonu mel mais euh, ligue sénégalaise ah, rajo am nag amul dara ah. amoon ay les années euh, avant deux mille ba mille cinq mën a xaalis et xaalis bi yëpp nag xaalis bi pour liggéey la woon doon pour def sa poche parce que rajo rajo ba ba mu fay jógee yaakaar naa benn oto la am mm-hmm. rajo ba léegi amul siège rajo changé na siège quatre fois léegi mi ngi nekk fii si jëppal seen gannaaw kër fii juste mm-hmm. donc ONG yi Sénégal ndey kuma ku la wax rek kon lu ñuy wax ay préjugé la ONG xamuñu xamuñu ba de Sénégal xamuñu lu ñuy wax ki dara lu mel ne rajo amul siège ba léegi bu mu moomal boppam elle depuis quatre-vingt-dix am na trente ans ñu di amul siège amul sax oto amul sax personnel ñun wala benn stagiaire ou ñaari stagiaire rajo am na ñetti ñeenti nit mais nit ñi li bëree bëri lañuy wax loo xam ne xamuñu ci dara te loolu moo am muy préjugé wax loo xamul Sénégal dafa ñeme dafa am fit mm. mais ONG yi par définition ONG sénégalais la africaine yi en tout cas francophone boog laay wax quatre vingt pour cent yi amuñu dërëm dañuy liggéey bénévolat par tempérament par caractère. mais ligue sénégalaise des des des droits humains moom est-ce que am na yeneen yu nekk si yeneen i réew wala Dakar. Sénégal kese la non on a dit ligue sénégalaise. Mhm. sénégalaise jeexal lay wax. donc fi la yem. Mhm. ONG africaine yi ci ëpp sax amul doole parce que pour nga am lu doole boobu am ci yeneen yeneen yeneen réew. day fekk nga am ay moyens. def comme Amnesty Amnesty Amnesty bokkul Amnesty depuis cinquante mi ngi liggéey. Mhm. am na ay son siège à Londres. am ay benn am na ay ay na xëy na gisuma ko man gisuma xaalis bi am na est-ce que am na oto. mbaa mbaa mais parce que léegi Sénégal xaalis indiw ma fa loolu laa la wax léegi nii dama liggéey ba retraité bëgg nopp lu may bëgg liggéey sama jikko mooy sama xeex jàppale askan bi moo tax ma jógee rajo te rajo bu ëppoon xaalis léegi léegi ba léegi amul dërëm dama may secrétaire général. mais mais naka naka lay demee pour pour nekk militant des droits de l'homme da ngay ñëw rek comme day Kumba day ñëw rek ñëw ne euh, Alassane Seck wala Seydi euh, comment dirais-je. Euh, maître Assane Dioma Ndiaye dama bëgg a intégrer. waaw ligue sénégalaise comme ça ñu accepté ma. waaw waaw. c'est comme ça que ça se passe. ça se passe exactement comme ça parce que dañu am préjugé favorable ni yow li ngay wax xëy na gëm nga ko da nga ñëw pour ñu liggéey ñu testé la. dans la démarche test la dans, la durée su fekkee dina wax mën nga ko parce que liggéey bi méttiwul ah. day am de temps en temps ay séminaire nga participer au débat jox sa avis ñu am benn séminaire d'activité ñu ñëw fa pour euh, trois heures de temps le matin onze heures wala dix heures treize heures ñu àcc loolu la ñuy liggéey de temps en temps mais amul beneen liggéey lu dul plaidoyer plaidoyer auprès surtout des médias comme ni may def ni tey. Mhm. dem suba ñu woo ma beneen télévision ma dem fa parler de ce qui s'est passé Sénégal ci temps yi passé amul beneen liggéey te amul benn coono bu ci am lu dul nga gëm ko d'abord il faut nga gëm il faut nga nekk militant. loolu nag mooy yombul nag Sénégal parce que bari fu ñu sëgg rek dafa am lu fa nekk ñun nag dañuy liggéey sans calcul mhm. avec zéro franc. zéro franc amul salaire amul maanaam bu ko jëlee mais mais mais seen i activités kan moo koy financer. exactement man sama oto sama oto léegi sénégalais sama oto laa bu ngeen waree def ay séminaire ah, ay def ay activités. comment ça se loolu am na financement ay ponctuel pour la durée. séminaire bi séminaire bi un jour loué benn salle cent mille francs loué sonorisation ah joxe peut-être ñëw ñëwoon doon def animation bi joxe leen ay per per pour un jour autour de donc dépense bi matul sax trois cent mille francs mais ku koy génne yéen yéen a koy génne seen poche. ah suñu bopp ñun am nañu quatre vingt pour cent des activités ñu ñoo ko génne suñu bopp ak ligue sénégalaise laa wax. mais yéen leen lu leen doy. c'est-à-dire. di dépense si ligue sénégal. ah waaw dem màggal Tuuba wala dem Tiwaawan génne seen xaalisu bopp gisuloo loolu ba tey yow mais loolu gëm-gëm la rek man dama leen ñëlee maa ngi indi sama oto fii man maa dawal sama oto pour mos ma fi ñëw wër ba egsi def sama carburant te dama daaw ma yeewu heure bi samedi dama naan nelawaat ba heure <laughs> <laughs> ma ma bàyyi sama nelaw yow xaw sax sonn daw ñëw génn egsi donc yooyu xam nga li ci important lu mu bëgg nga jàpp ko mooy gëm-gëm gëm-gëm bi amul amul amul sax explication day mel ne tey tali bi murit wala tali bi tiyaan tali njaasaan mhm. dafa gëm loolu mu def kay si day mel ne que ëllëg ñeneen ñi bokk ci jihadiste si wala leneen kenn fayu leen ci xaalis mais mais mais kii waxoon na fi maître Assane Dioma Ndiaye ne euh, proposé woon nañ ko ah. xaalis bu bari ah. pour mu euh, défendre les droits des homosexuels waaw moom moo ko wax ah, waaw moom moo ko wax moom moo xam man xamu ko ah mais yaa ngi biir léegi sénégalaise nga ne doo ci wax daa du ma wax ci leen si li ma la question bi ma la posé loo ma posé question maître Assane waxoon na ni proposé woon nañ ko xaalis bu bari pour mu défendre les droits des homosexuels kon am na si ni mu koy defee wala rado ah, waaw dama ni waaw li nga wax moom laa lay dëggal ne xëy na moom xale ba man fekkewu ma ko mais su ko waxee dëgg la parce que Assane Dioma nekkul ci ay caaxaan du ko inventé Assane Dioma yéegi nekk nañ ëpp vingt ans trente ans ñun moo tax ma ne amul yeneen lobby nga fa nekkee ak yooyu ñëw di leen proposé xaalis pour défendre yoo xam loolu amul loolu amul loolu jubul sax parce que ñun loolu lu suñu tempérament lu suñu jikko lu suñu éducation ñun on est des sénégalais deux cent pour cent donc li ñuy gëm mooy li ñeneen ñi gëm sénégalais la ñu xaalis taxul Assane Dioma dafa am métier il a avocat depuis trente ans au moins man dama nekkoon cadre et presse pendant trente ans donc ñun eggnu fu ñu taxaw ñu jox xaalis pour yëm nu yëm nu ger yëm nu corrompre ci ay affaires yoo xam ne gëmoonu ko donc loolu mënul nekk loolu mënul nekk moo tax ñu naan Ligue sénégalaise dafa nekk ONG à part ñun amuñu benn financement de temps en temps. yéen ah. lan mooy seen touche originale ba ngeen ne ONG à part. ONG non li nga wax rek dama ne la am na ñoo xam ni dañ am métier la. Mhm. mais ñun dañ am nuance. c'est-à-dire que ñun on est beaucoup duñ bokkunu ci aba ñun dañu amul benn financement boo xam ne moo ne ci la ñuy dépendre ñun. am ay bénévolat bénévolat amul amul salarié. Mhm. d'abord. donc dafa nekk kenn du si salarié. amul amul salarié ci Ligue sénégalaise amunu siège bu nu moomal suñu bopp Assane Dioma ci biirum cabinet moo nu hébergé de temps en temps dana am financement Union européenne pour benn projet comme EPU euh, e ñu war ko suivre pendant ay 6 mois 1 an 2 ans ak RADDHO mais ñun dañ ci am loo xam ne c'est uniquement pour payer ka fa nekk liggéey pour RADDHO te kooku ñun duñ ko financé Union européenne moo koy financé mais ma ne ndey ko ba soo gëmee li ma lay wax. am na soo gëmulee c'est vérifiable. parce que ñun amuñu jot di wax loo xam ne amul parce que amuñu ci rien en contrepartie. kon instant bi léegi sénégalais lekkul ci koppar yi. sénégalais yi foofu eh, am ngeen koppar yéen waa réew mi. Ah, lan non non c'est différent. <laughs> est-ce que am ngeen koppar yéen. non non c'est différent parce que sénégalais yi ONG bu am xaalis ak gisuma ko mën. ah da gars yi dañuy wax ONG yi. ñoo yor xaalis bi tubaab bi ñoo leen di. xëpp xaalis bu jeex waxu waxu waxu ah, pour ñuy ñëw di défendre fii ay. Ah, ñoo daan défendre pas góor jigéen bi dañuy défendre nit góor jigéen mu gis ñu koy bëgg faaga dañ koy défendre parce que pour ñun nit la ñun nit ki. yow invité naa la fi ngay défendre góor jigéen ñi. jamais boobu yaa ngi rado. non ma ne ma ne. ma ne bu muy invité woon naa parler du góor jigéen li ma lay wax dafa ça fait huit ans la ñëwoon fii. Hmm. huit ans boobu tu as le temps d'oublier. Hmm. on parlait pas de góor jigéen à l'époque. góor jigéen dama ko assumé dama ne la ñun culture may nañu défendre góor jigéen ci suñu éducation may nu ko dañuy défendre nit kuy dund muy tubaab muy góor jigéen muy chinois ñun dañuy défendre nit définition. les droits humains pour ñun bakkan dafa nekk loo xam ne dafa sacré ñu ngi suñu constitution suñu gisee góor jigéen bu ñu bëgg a rey euh, bëgg koy défendre mais kon bu góor euh, jàppale ngeen ko jàppale ci ban fànn par exemple comme ni nga ko ah, ko rey wala mu nekk en danger su ma gisee sax xar bu ñu bëgg a rey xar ma a dama koy défendre porter plainte borom fas kooku moom gis ko bu a rey fas koy défendre kooku sama tempérament la gisuma gisuma tax du boobu dafa am kuy dund ñu ku dund nan lay defaan góor jigéen nag xara yam loolu moom sunu tempérament dañ koy assumer mais promotion góor jigéen encouragé góor jigéen duñ ko xamuñu ko man ak yow ci yem ak keneen parce que kooku du sunu éducation sunu parcours may nu ñu défendre góor jigéen mais day défendre nit kuy dund ñu war ko faagaagal war ko jaay doole ñu ne déedéet loo droit. mais loo euh, droits humains yi bari na ci réew mi euh, Ligue sénégalaise des droits humains moom lan mooy particularité ñun dama la wax ne la au départ dañu amoon ay avocats yu ko sas. Hmm. donc yu ci ëpp mooy loolu ñuy wax jàppale ci siable bi koo xam ne dañ ko jaay doole ba pare bugg ko daal Assane Dioma loolu liggéey yu baree baree bare day défendre les victimes toujours day défendre les victimes par définition automatiquement xale yi reyoon fii université ay Bassirou Faye ay Balla Gaye ay xale yu mujj yi nekkoon Ndar Assane Dioma ay kun jaaroon doole Kédougou am fàtte woon naa ko benn surmier hmm. ligue Sénégal day day défendre. zéro franc zéro franc. du leen laaj dara zéro franc day jël dossier bi. zéro franc zéro franc dem ba Kédougou ndax mu gëm ndax da ngay gëm li ngay wax parce que xam nga li important day kumba mooy nga gëm ni ngay def foo ko gëmee rek da ngay noppal sa bopp doo sonn loo ci def rek daf lay jaral donc ñun talibé lañu ci côté boobu dañ nekk ay militants mooy talibé dañ gëm ni il faut ñu défendre nit ñi parce que nit yàlla daf ko sàkk mu nekk benn bakkan bu mhm. mhm. mhm. a noot léegi lan mooy lan mooy droit de l'homme droit de l'homme mooy <laughs> li ak yelleef doomu adama sa sa sa sa mooy li nga li nga li nga war a li li nga moom li nga moom comme tey dama am droit dox ci tali bi ngeen ma du ba fa dox mhm. loolu donc mooy àq mhm. ma am droit mu taxaw wax lu ma neex dara liberté d'expression yaa ngi ko tudd ci ma wax parce que dafa am ku ma ko may mooy charte fondamentale bi mooy constitution moo ne am nga droit def lii am nga droit def lii amuloo droit donc man li ma am droit dama koy xëccoo dama koy xeex dama def conquête am pour jël ko loolu mooy suñu liggéey par définition léegi euh, tey ji lan ngay tontu souvent ak euh, peut-être am ñoo xam ni les religieux souvent dañuy ŋàññ li nga xamante ni moom mooy euh, kuréelu droit de l'homme yi wala ñiy défendre les droits humains que yéen souvent yi ngeen di défendre du dëppoo ak li nga xamante ni moom mooy suñuy valeur loolu lan nga leen di tontu exactement ma ne dañ di passe à côté ku loolu xamuloo li ngay wax parce que ñoo religieux yi ak man ñoo gënu ma nekk gënu ma nekk sénégalais hmm. valeur yi moom valeur valeur kenn amul valeur valeur nag su fekkee ne da ngay dem dem jaamu ji benn tel sëriñ wala wala leneen. Hmm. mais su dee valeur rek kenn man ñooñu ñëpp ki ëpp maa leen mag donc lu ma xale bu ndaw. donc kenn du ma samay valeur Sénégal parce que man ci laaj. mais d'une manière générale les les les militants des droits de l'homme waaw waaw waaw waxal. non dañu gis ni yi ngeen di defan comme par exemple tey jii. Euh, di ngeen gis euh, militant des droits de l'homme yi ñoo fiy taxaw carrément di réclamer droit wu homosexuel yi. non non euh, voilà. quelque et encore dañ ciy dañ koy nuancé. parce que ñoom dañuy wax daan ni Sénégal nekkul ci situation boo xam ne day défendre droit de l'homme et puis dama bañ focaliser suñu waxtaan yëpp ci ay ay góor jigéen parce que vraiment il faut. non non am na beneen ah, débat. Ah, ah, wala wala c'est la question bi dafay déranger. non non déranger dama ne la faut par exemple tey jii gis nañ ni ONG ñoo fiy taxaw. di wax nañ naan ay avortement médicalisé. ah ça c'est autre chose. non dama poser question d'une manière générale. waxuma léegi sénégalaise des droits humains wala des droits. voilà d'une manière générale. ONG dañuy défendre yoo xam ni. souvent du suñu euh, valeur. Ah, loolu laa la wax valeur nag kenn monopole dama la valeur. Ah, ah, dama dama ne wax rek. dama bëgg déglu ma ba pare. valeur kenn ni amul monopole li may valeur lii du valeur. kenn amul monopole ci àddina kuy dund la Sénégal fii. Mm, mm. ku amul kuy dund daanaka li may suñu valeur lii du suñu valeur pour ñun. défendre euh, avortement médicalisé mais dañ koy assumer parce que pour ñun koo xam ne dañ ko violé papam papam mu nekk inceste wala nijaayam wala papam te ëmb bi jotagul eggagul nekk nit. 4 mm. semaine wala 8 semaines ça dépend de la de l'avis du médecin. Mm. pour ñun pour ñu yàq biir bi. ñu dañ koy assumer moo gën ñu koy bàyyi mu génne juddu koo xam ne day nekk monstre. léegi yow loolu ngeen ko teg. loolu loolu ce que suñuy valeur la. dama xam nga valeur mooy lan. waaw dama dama dama nuance dañ ne nit ki. Mm-hmm. ku ñu ëmbal agagul ñu suivre ko agagul ci foo xam ne dañ koy considérer comme nit borom. kenn ku ëmbal kenn violé xale bu ndaw benn quand je vois la publicité à la télévision ñu wax yaay 12 ans doon jàng am ko ko romb violé ko xam nga loolu lañu souvent ça passe en boucle ci télévision yi temps yi mm. xale boo xam ne am na 12 ans ni yaayam wala mbokk mu ko jege violé ko viol bi amagul grossesse bi amagul un mois mooy nekkagul nit mais dañ ni am na droit demander avis ki ki nga xam ne moom moo ko subiir ki ko subir mu joxe avim ci loolu soo ko bëggee de tee doomam su ko bëggulee te nekkagul nit ko préciser lu leer nekkagul nit su boobaa am na droit demander ñu ñu dindi ko yàq boobu. parce que mais Alassane Seck loolu da wax lu la neex. parce que ah. loolu bokk ci valeur u Sénégal. du diine du religion. déedéet xanaa déggoo ma la ah. xanaa déggoo diine diine maa ngi souffrir benn débat dañ diine bi mooy dafa wax ni su fekkee nekkagul nit xam may may ko mooy nit nopp pour déglu la ak pour dégg dama ni léegi su fekkee nekkagul nit. fétiche bi nekkagul nit. Hmm. trois semaines quatre semaines. xam ne amuñu ko sur le plan juridique sur le plan réel. Hmm. duñu wax ni kii nit la. fétiche hmm. day progresser une semaine deux semaines trois semaines quatre semaines huit semaines valeur maanaam la xam ne la valeur ndeykum ba kenn amuloo monopole. man ko définir ki sa xalaat. non wala yéen lu leen arrangé. ah ñun arrangé wu man man kenn amaluma man jigéen man góor laa gis naa xale bu jigéen bu ndaw. mais lan moo leen poussé ngeen di appuyer. avortement médicalisé cas d'inceste. non xoolal faut pas que ça soit aussi man bëgguma ñuy discuter loo xam ni yaa ngi da ngay da ngay global damay damay def ay détails. Mhm. à condition que que que que dafa am ay conditions. dafa am ay conditions yu ma posé soo ci eggee loolu man dama ko d'accord naa ci dama ne la ba léegi kii wax. nii valeur li kii la kooku man gënu ma nekk Sénégalais gënu ma xam valeur. maanaam ñoom li ñu jàppee valeur. yéen mën ngeen ko bañ a jàppee valeur. mais absolument maanaam c'est relatif. c'est tout est relatif. nekkuma relatif mooy tout est relatif dans ce monde là parce que bokkuñu bokkuñu bokkuñu peut être jaar jaar ñoom man dama man man déjà man góor laa duma jigéen man donc mun ma subir ëmb man bay jël décision. dama ne dama suivre télévision ak rajo barki dem ba j'ai douze ans dama doon jàngi am ko ma après ma ma ma am xama ci xama xama kuy papa ji loolu laa la wax xam nga yooyu man du man du man en tant que personne man ma ko nekk man góor laa mais dama ne damay défendre principe bu kooku mam kooram ma merabam ñu jaay ko doole ëmbal ko à condition que que xale bi nekkagul nekkagul nit amagul peut-être quatre semaines wala huit semaines ma ni am na droit moom ku jigéen ki demande am na droit d'accord ngeen ñu amal euh, avortement oh, médicalisé. loolu d'accord ngeen ñu ñu ñu voté ko. bien sûr moo tax ma moo tax ma lay wax. moo tax ma lay wax mais mais loolu su amee ba pare euh, euh, Alassane Seck naka ngeen di mën a ràññee. wala naka la ñuy ah, mën a ràññee. plutôt Euh, les victimes d'inceste et de viol ak nga xamante ni mooy loolu loolu nag mooy débat bi ndey voilà xam nga loolu mooy loolu mooy débat c'est la grande question c'est la loolu nag mooy dafa am subi xam nga il faut que l'état yi mettre les moyens parce que ku ñu ëmbal su ko signaler à la police jàpp date bi mu am am na benn euh, la limite benn clinique wala benn structure de l'état buy suivre cas yu mel noonu cas xam ne kooku daan la ëmbal mu signaler ko par exemple dans un dans une brigade spécialisé à cet effet ñu xool xam ne kii kat c'est un cas patent entre dans le de la loi mais boobu laa lay wax. Mhm. man waxuma ku ñëw rek yow suba daal di ba dal ma ëmbal. kooku kooku c'est pas vérifiable mais kooku signale dès le premier jour parce que loolu violé la première fois nga dem police. mais kon kon comme ñi dal seen kaw euh, d'accord ko ñoom li jàppee valeur yéen tamit. <laughs> non bien sûr que ah non Jamra kon ñu bokk association xoolal suñu bokkoon bokkoon bokk association. Mm. a travaillé ensemble ci benn liggéey maag moom. morom ay master banque moom su bokkoon moom bokk ci li mu gëm loolu. Mhm. Jamra Latif Gueye sama goro la direct. yaa ngi may dégg donc su ma gëmoon loolu mu gëm man damay bàyyi liggéey Sénégal dem moom mu gën a jege. Mhm. Jamra moom mu kër ça pas cent mètres. donc su ma gëmoon ñoom li ñu gëm ci sur tous les damay dem bokk ci ñoom mais man bokk du gis-gis moom il est militant le plan religieux man je suis pas le plan religieux te gënu ma nekk julit sur tous les plans dem naa Makka ba ñëw deux fois damay dem damay joxe asaka damay woor damay julli Alassane laa tudd sant Seck fi laa juddoo fi laa màggee fi laa yaroo. Hmm. dama ne nag nit ki. kenn am lu monopole daal di lii mooy def moo baax li kële baaxlewul ko ku ko wax rek da def loo xam ne wax nga. loolu la Assane Seck fii nga toog nekk euh, militant des droits humains di défendre doomu aadama moo la intéressé bu ñu la joxoon koppar jox la moyen ne la defal plaidoyer pour les droits des homosexuels au Sénégal. non non ko ko ko accepté déedéet. di nga porter le combat déedéet xam nga la wax tontu bu leer laa la wax dama ne la doo porté le combat lu promotion waaw parce que parce sama jikko fi ma yaar fi ma jaroo dañu dañu ko sib góor jigéen dañu ko sib ma yaroo ci nag te du ma xaleel ma yaroo ci màgg ci dañu sib góor jigéen donc ma dama ko défendre. ko défendre léegi sénégalais tamit da ngeen catégorique. mais c'est clair lépp sénégalais am na léegi ren 12 ko dégg ko lu Assane Dioma xam ne sax moom a gën a nekk taalibe dama ne loolu nekkuma ay waxu caaxaan la parce que xaalis muy Assane Dioma muy Alassane Seck xaalis du tax milliard du tax ñu def loolu milliard parce que ñu dañuy tedd ba pare soo ko liggéey dañu tedd on dépend pas de l' xaalis moom loo ko waxee rek tu passes côté amu ci amu ci xaalis ñun surtout léegi si léegi sa léegi xaalis amu ci un une fois ñu am tentation am ci dara parce que loolu sa gàcce la ëllëg ngay xool sa bakkan xool sa karam ci ci ci ci ci seetu bi daal ne man milliard bi moo tax ma doon def lii te gëmuma ko samay doom samay jarbaat samay mbokk damay xool damay damay sip ndax xam na ne loolu suma jikko ñu ma naka naka gisee ñoom Seydi Gassama ñi ñi leen di défendre mais ñooñu waa Amnesty Amnesty mosul défendre góor jigéen Amnesty mosul défendre góor jigéen Seydi Gassama di génn carrément joxe position Amnesty waaw waaw mais nee na nee na xam na ni Sénégal àggagul foofu ci xalaat boo tax Seydi Gassama il est très nuancé man Seydi Gassama maa ko yar sama xarit la sama rakk la ñoo nekk depuis plus de vingt ans mais mosul défendre góor jigéen en tant que tel xëy na moom langage am c'est beaucoup plus cru mais moom da nekk lu leer la wax Seydi Gassama il est de la Casamance à la limite sax surtout doomu Serigne la Seydi donc kooku ak mën a yem ci gëm-gëm mënu nekk di gëm loo xam ne du suñu aada du suñu jikko suñu aada ak suñu jikko nag moom mooy suñu mooy suñu départ suñu si mooy jëleenu mooñ ñun ba pare jëleenu mooñ ñun soog a ñëw nekk militant mais nag mais nag am Seck si moom seen position ñëpp xam nañ ko par rapport ak droit wu homosexuel yi. ñoom seen position c'est clair. waaw ndekuma pour amnistie man. waaw léegi léegi ñu ngi leen di fàttali yéen ngi sur seen émission sociale toute la ville en parle tey jii Ndeye Comba Moreau dalal Alassane Seck nekk secrétaire exécutif euh, bu Ligue sénégalaise des droits humains Alassane Seck tey boo doon natt ci régime u Macky Sall 2012 ba ñu ngi actuellement 2021 euh, euh, situation wu ak ak yelleefu doomu aadama yi lan nga ñuy wax. waaw man ne pour man des na lu bëri ah des parce que su ma gisee barki dem li am rek ma xam ni des na encore ci démocratie bi ak liberté yi des na lu bare loo xam ne da ko war a yàngat Sénégal ba léegi suñu dirigeants yi dañ xaw a ragal dañu fri la wu wuñu accepter l' état de droit mm. moo ñu respecté nit ñi respecté citoyen bi gis naa barki dem ñu jàpp Guy Marius Sagna ñu ko jàppee nee nañu fausse nouvelle fausse nouvelle bi wax na ban fausse nouvelle la jàpp ko parce que ba procureur bi demandé ñaari at kaso ak donc six mois ferme pour man damay am scandale lay xalaat ni loolu loolu scandale la que ñu mën a wax loolu Sénégal en deux mille vingt et un yaa ngi fi vidéo yaa ngi fi avant moom ñu nekkoon ci nguur gi ak ñu nekk ci nguur gi actuellement wax na lu gën a garaaw loolu mais pour man loolu mooy destin Sénégal ba léegi c'est vrai que pays africain problème liberté d'expression am na. am na bu métti métti moom laa la wax moom la fausse nouvelle la del xale bi nu mu tuddee ci Guy Marius Sagna pour man loolu doy na Sénégal ma dafa waroon dépasser loolu après le après le 23 juin parce que boobu dañ amoon ay conquête mm. de liberté ba am loolu ñu am donc pour man vraiment des na lu bëree bëri loo xam ne. manifestation yi ñuy tere nag. kooku moo gën a garaaw parce que ñun euh, deux mille vingt euh, deux mille onze bi gars yi gagné juin dañ bàyyi manifestation moo doon nekk un déclic. pour les manifestation war na ko parce que c'est mis dans la constitution war na ko mën a tere da war a def déclaration rek wax ko mu jël ay matuwaayam parce qu'ils sont la pour ça léegi tam ko bind ne c'est un droit constitutionnel constitution moo ko maye du ay benn loi si seen yaay loi yi moo ko mm. maye donc fu nekkee ba léegi nii dóor ak di tere ay manifestation loolu jaay doole rek la du leneen mais mais mais yéen ah, waa Ligue sénégalaise à part Euh, problème mu euh, manifestation yi ñuy tere euh, liberté d'expression tamit ça pose problème parce que am na ñu génn wax ñu ngi ci kaso bi lan tamit ngeen di ñaawlu encore ci nu ñuy jalgatee àq ak fu doomu aadama yi fii ci Sénégal su l'ère de Macky Sall. waaw li ci ëpp moom mooy man dama wax ne justice bi des na encore justice bi pour man waroon a gën a am vertu d'esprit ba bañ a di tëj systématiquement nit ku def sàcc ganaar ñu tëj la kaso ku ñu arrêté pour affaire de yu ndaw tëj la kaso fees dell ah, loolu mënoon nañ ko ko évoluer def réforme yu forte ah waxoon ko Macky Sall proposé na day def réforme pour justice réforme conseil justice de la magistrature def ko parce que pour ñun xëy ñoom ñu ngi indépendance de la de la justice ma la wax rek réforme bi ci mooy ñu may yi yu gérer seen carrière seen bopp loolu moom amul mm. te loolu day tax ñu am malheureusement loolu dafa nekk loo xam ne dafa dafa dafa flagrant ak leneen ak leneen pays yu mel ne ay Togo wala yeneen sax sur le plan constitutionnel sur plan de des réformes ñoon ëppoon fit def ko donc ñun liggéey nañ ci ak magistrat ba tey donc des lu bari loo xam ni waroon na am te amul sur le plan de des principes loolu am na kaso yi ni mu war a mel melu ko même si on a man bokkoon naa ci loolu ñuy ONLPL. Hmm. observateur national des lieux de privation de liberté ñuy dem di xool kaso yi di saytu di signaler. am li est-ce que boobu mu ngi am ba léegi. am na madame Ndiaye ma fa nekk mais am na amuñu moyen. ils ont pas les millions. parce que am na temps Boubou Diouf moo fa nekkoon. Boubou Diouf moom moo ma embauché woon. voilà Boubou Diouf moom moo ma embauché woon. Mhm. ba ba mu nekk ba mu demee maa fa nekkaat encore ak madame Ndiaye après man ma bàyyi. parce que lu tax nga bàyyi dafa amul moyen. waaw ah, non du kii booy dama intéressé parce que li ma doon liggéey àndul ak ñoom seen seen seen seen style. Mhm. man liggéey daal dama am liberté d'expression dama nekk ONG des droits de l'homme donc man nekk dans une structure de l'État donc état bi moo ko moom à la limite. logé au ministère de la justice man sama tempérament ak sama démarche bokkul ak ñooñu ba ma demee ba ci biir gis loolu ma gardé contact amical mais nag moo ne man banaa hmm. nee nga euh, ñoom amuñ moyen pour liggéey. amuñu loolu moyen liggéey non que des de fonctionnement Sénégal li ci ëpp loolu la dañuy créer ay structures. Hmm. yu rëy am tur bu rëy a parce que c'est recommandé par les Nations Unies. Hmm. mais derrière duñu liggéey dara dañuy fay salaire fay luyaas peut-être fay il y a pas de salaire sax parce que état bi moom moom bâtiment yi la peut-être de fii wala au euh, commissariat aux droits de la benn projet nga dem dans les régions installé fa ay ay observateurs mais lu lu rare la nekkul laal ñu ils n'ont pas les moyens de leur politique surtout surtout yu bëree bëri créé nañ ko fii mais liggéey nu liggéey bu nu war a liggéey pour mu feeñ tey jii euh, Alassane Seck boo doon noté Macky Sall ci wàllum droits humains. sur combien sur vingt wala sur dix. Hmm? sur ñaata. sur dix <laughs> soo doon noté quatre la koy may quatre ou quatre sur dix. maanaam maanaam dafa dafa dafa dafa régressé. Ah, li ñu fekkoon ah, avec le régime de mm-hmm. Wade. maanaam jëmalewu ko kanam. non non non delloo ginnaaw waaw parce que Wade avait donné le ton quand même Wade en 2011 il avait donné mm. su nit ñi amoon possible ba Macky Sall falu. Mm-hmm. Macky Sall su faloo su fekkee Wade moo ko may occasion mu défoulé nangu régulièrement dem place de te def ko de façon systématique chaque 23. Mm-hmm. ba loolu àgg fi mu àgg kooku foofu Wade moo ko mayewoon te loolu Macky Sall mayewu ko. kon 4 sur 10 ko may wala 3. 4. sur dix waaw si wàllum droit humain <laughs> waaw <laughs> léegi euh, yéen droit de l'homme yi si Alassane Sène droit de l'homme si laa d'accordul nag de l'homme léegi quel est lan mooy différence bi droit de l'homme mili militant des droits de l'homme laajal euh, xale yi ou des droits humains laajal xale yi quelle est la différence merci laajal xale yi ba Fatou Baba wala ñoom euh, buñ la woowee ma ne bu leen wax droit de l'homme parce que pour ñun c'est l'appellation est péjorative pour ñun ci perception bi parce que ñun nekk du fi pour ñun fi nekk pour yéen pour nit ñi pour askan bi donc radiolémiste day nekk benn genre ah, dana koy catalogué pour ñu naan c'est péjoratif ci perception man laa wax. dama mm. jàng naa jàng naa jàng naa école donc. bon pour man droits de l'homme militant. parce que amul ci français. Mm-hmm. amul ils l'ont créé. Mm-hmm. ci ëpp surtout au Sénégal. Mm-hmm. que ñu koy utiliser journalistes yi di koy utiliser à parce que dañu bëgg lu yomb wu cherche des mots nouveaux wala ñu xam néologisme mais bii moom baaxul. moo tax ko wax ma eh, ne moom militant des droits de l'homme yu lu tax yéen militant des droits de l'homme yi euh, duñ leen faral di dégg euh, ci wàllum droit à la santé alors que mu nekk euh, loo xam moo war a njëkk ci droit yi mais duñ leen ciy dégg maanaam askan bi nga xam ne buñ feebaree bëgg faju mënuñ faju xam nga xanaa amatuñ accès xam nga ne waaw xam nga la santé coûte cher lu tax duñ leen siy dégg tamit xam ONG yi ONG dana dana spécialisé dana am presque sept ONG droit à la santé bi wala ma la wax barki démb AGS mi ngi koy wax pour jigéen ñi. Mm-hmm. am na yeneen ONG yoo xam ne ñu ngi koy wax pour leneen ONG yi euh, RADDHO na ADHA xale yi parle de migration sabab ba xale yi ñoom Adama Mbeng mm-hmm. am na euh, yoo xam ne dañuy toppatoo affaire élection yi ñoom Ndiaye Cissé ñoom waa Babacar Fall waa Gradec mm-hmm. donc ONG bu nekk am nga ci liggéey. ñun mënul liggéeyandoo lépp ñu leen wax. mais ñun fii gisuñ fi ONG bu taxaw carrément di ah. xeex. pour ah, pour santé pour tous. mais ko yow créé ko boog yow. non ko créé yéen yéen a wax léegi sénégalaise des droits humains. waaw. waaw mais droit mooy droit à la santé. lu ko jotewul parce que loolu day ànd ak day ànd ak ñu am xam-xam bi ànd ak militant yoo xam ne ay c'est des médecins wala bokk mel ne am ngay volonté bi parce que mu ngi sa xel nga créé ko encadré ko. ku nekk rek ak li nga li nga tippaw xam nga yaa ngi nekk Rewmi FM. Mm-hmm. am na Sud FM am na RFM am ngeen benn spécialité ak seen style. au niveau de votre euh, site internet au niveau mm-hmm. am ngeen chaque fois ay ay option ku nekk rek ak sa option ñun xëy na comme li nga wax am na manquement. ci loolu côté boobu d'accord naa ci. mais loolu comme tu dis ku mel ne yow nga ko susciter wala wax nga ma ko léegi dinaa ko wax sama benn copain médecin boo xam ne su di bëggee bay dem retraite mën nga ko créer loolu maanaam ñoo xam ne droit à la santé absolument d'accord que mhm. mhm. donc ñun loolu su amoon c'est très tant mais li ma lay wax daal mooy ONG yi amuñu xaalis amuñu moyen parce loolu lépp xaalis la ak moyen mhm. donc loolu li jafe au Sénégal mën na ONG yi fii les quatre-vingt pour cent amuñu siège bu baax siège amuñu góorgóorlu lay def mais du loolu la euh, lool du du du la sénégalais yi xalaat de. ah waaw mais sénégalais yi sénégalais yi. di leen di seetaan wala di di leen déglu ci rajo yi jàpp nañ ni. Euh, militant droit de l'homme yi. xaalis bu dul la ñu yor. laaj ma man nga heure bu génnee télévision yaakaar ne am na xaalis. ñun ma Macky Sall ma ne Macky Sall dana ma jox xaalis man Macky du ma du ma ko wax lu ko neex ma dama koy wax dëgg donc man la ñooñu sénégalais yi sénégalais seen niveau xëy na àggul ñu xam loolu parce que droit de bees la Sénégal mi ngi am ay ONG. Mhm. droit de l'homme à mhm. partir de rajo 90 la. Mhm. Ligue sénégalaise la. am si Sénégal moo fi nekkoon xëy na donc loolu ñàkk xam-xam la ñàkk xam laa bëgg a wax sax du xam-xam ñàkk xam. donc loolu mooy ignorance population yi xamuñu lu xew parce que ONG yi kenn du leen financé gratuitement même ñun ñi wala ñeneen ñoo xam ne dañoo rajo wala Amnesty lu ñuy liggéey dañ koy rendre compte à un franc près seen personnel du changé rajo euh, Amnesty su oto su ma ko ak dawal pour dem ci ay séminaire rajo benn oto la am depuis 2011 benn oto dama ko soog am 2011 man maa ko jëndoon ba ma nekkee foofu vice président donc pour wax la ni la xaalis bu ñuy wax xalaat amu fi xëy na amoon na y' a y' a 40 ans. mais amatu amatu fi. léegi euh, lan nga xalaat Alassane Seck ci euh, ñiy euh, faatoo ci biir prison yi wala ñu jàpp leen sax ci garde à vue ainsi de suite en tout cas ñuy faatoo ci diggante fi leen police jàppee tribunal ainsi de suite wala ci commissariat bi comme par exemple gis nga affaire Cheikh ñas ak tole bi nga xamante ni jur na ko lan mooy ci sa xalaat en tant que militant des des droits de l'homme ah merci Agathe comment comment se suivre léegi c'est gentil <laughs> ma ne <laughs> alhamdulilah wala ndey ma ne xam nga lu ma bëgg a wax foofu. Mhm. xam nga kooku kooku moom mooy na saxaayu état bi. garde à vue garde à vue gis nga cellule ni mu ñaawee ak ni mu saltee. Mhm. Mhm. loolu rek mën a rey nit. garde à vue par définition mooy garder à vue. or su amee nit nii dafa amoon corona et dafa amoon glycémie dafa amoon diabète trois grammes laay jàpp tey laa dégg ci rajo bi donc pour wax ne la loolu su amee rek dafa am défaillance au niveau des postes de police et de gendarmerie dafa am défaillance parce que man dem naa l'école observateur des prisons man pendant deux ans. Mm. dem naa ci ay. police def ay tour xool. tour xam am na yooyu. torture moom de de moins en moins léegi parce que ku ciy torture rek xam nga loolu li ci ëpp mooy négligence. négligence xaw a bàyyeeku ñàkk ñàkk euh, comment dire ñàkk rigueur. Mm. ci liggéey bi. xaw ko nasaxal mooy xale bi di xare woon ci toilette yi foofu police centrale Cheikh Niass wax naa la c'est un cas à mais du amee rek. yi ci am yi ci ëpp négligence la ak ñàkk rigueur ñàkk professionnalisme ci ñi nga xam ne ñoom ñoo chargé woon pour ñu garder ñoom. mel lan moo ci solution par rapport ak loolu. mais d' abord d' abord que defaat ay réformes. gën a am ëpp rigueur parce que lépp dalay dal dalay dal sama kër. nga ñëw am sa doom bàyyi ko muy tax muy xoolee dugg ci waañ bi jël almet yooyu yëpp day am su amee su boobaa nga corrigé ko wut kaa bi tëj waañ bi croisé et ainsi de suite loolu lay am Sénégal on un pays en voie de développement dañuy jàng mm. amee policiers yi am na formation bu leen war a defal xëy na davantage de rigueur pour soo jàppee nit xam ne kii il est capable de tout donc déjà tu averti am nga yeneen cas yu ko jiitu woon ngeen ah léegi doo ren avant su ma jàppee nit mm-hmm. du ma xef di ko xool parce que il est gardé a teg bët suy am toilette mu naan mu du bala ma bala ci toilette ma xool ko dama koy visité xool toilette xool amul loo xam ne mën na ko gaañ pour man la. pour ëllëg parce que mën naa loolu c'est plus ça que autre chose. parce que dañuy gis souvent du am suite coow li mën na bëri ni Cheikh Niass on a vu le cas coow li bëri woon na si mais après mi ngi nii. mu parce que même sa famille sax déggatoo leen ñu wax. mais xoolal addina moo mel noonu. parce que loolu su fekkee ni kenn mënu désigner quelqu'un day am parce que doo ñëw aussi inventé. Mhm. jox benn nit ki ne yaa tooñ te yaa ko def te defu ko su fekkee daa am négligence. négligence tout ça c'est de euh, day am sanction interne mais day am sanction yoo xam ne da koy bind ci rajo bi daal ne non bi doon surveiller élément Touré tëj ko kaso kooku su waree am. du yaa koy xam la man mais dañuy am su fekkee ni euh, police bi mi ngi liggéey liggéeyam loolu loolu nekk loo xam ni dafa nekk disposition population yi ñu xam ko mais daal ay manquement la yaakaar naa ci seen liggéey ñoom daan def effort de réforme ci li ñu nekk pour ëllëg dootul la dalati Euh, dernière question di euh, gis nga insécurité bi tàmbaliwaat na euh, ñu ngi commencé waat di faat faat yu doy waar ñenn ñi di wax ni nañu indiwaat li nga xamante ni moom mooy peine de mort yéen waa Ligue sénégalaise des droits humains ànd ngeen ci le rétablissement de la peine de mort au Sénégal waaw wala déet. déedéet. pourquoi. ah parce que pour ñun bakkan dafa dafa dafa nekk lu sacré bakkan. dama la wax léegi ne dama gisoon koy dóor fas ba rey ko dama koy xeex ak moom dóor ko ko plainte fas mm-hmm. asma ak nit nit ko rey état amul vocation rek un état assassin di rey froidement citoyen nit rey nit tax loolu du amati loolu amul benn lien mais ci diine nañ la faat mais fii du diine nag fii du république islamique du Sénégal fii defe na on est du doon république bi kooku pour yow pour yow mais kon kon Mbàkke ba léegi kenn natul kenn nit Mbàkke kon ba kon kenn amatul ay nit wala Chine wala feneen loolu amul may kumba amul benn lien. d'accord leen ci ci noonu dañ ko. faat ko faat. déedéet man sénégalais. ma laaj ma tontu la. Moreau danga ma laaj ma tontu la. dama li xew fee démb Ouest Foire. waaw waaw affaire avancée kii affaire circulation nga génn jam ci nit mu dee. xeex énervé xeex dépassé kooku da koy regretter toute sa kooku déjà yàlla da koy duma à son âge vingt ans mu rey benn moroomam toute sa vie daf koy topp kooku doo ko reyee après day tax xale bi ki ki woon ñëwaat. kooku tout ça bi dañ koy. mais mais dina ah, wàññi ku dem bay faat di ko xalaat parce que di nga xam li lay xaar les conséquences. mais fii léegi da ngay rey déglu déglu déglu rek. non waaw déglu rek barki dama Ousseynou Diop boobu rayon taximan rayon taximan bi. Euh, mm-hmm. booy boobu. Mm-hmm. parce tax ba ñu am rey te amul Sénégal depuis lors ñu ngi am rey ba léegi amul benn lien nit suy rey dootul nekk nit ki day nekk leneen xale boobu jënd ay xëccoo ay oto xëccoo ay passage ngay xeex dañ xeex mu énervé dem jëli paaka donc période boobu euh, devient à la limite anormale nekkatul nit loolu mënoo ko contrôler ci nit solo loolu kenn dootu rey kenn ndax États-Unis ba tey Texas dañuy rey nit froidement dañuy jam euh, nga dee en fii ba tey Sénégal dañuy jàpp nit ba la ba la ko jugé am na ki reyoon Fatimata Mataan Njaay foofu barki démb mm-hmm. chauffeur am mm-hmm. xool ma loolu kay mel noonu xool ne kooku mm-hmm. sa yaay à limite nga ñëw rey ko froidement ak paaka su doon lan ko rey kooku est-ce que dina tax nga nii du amati. mais si dina wàññeeku. non yow loolu nga xalaat parce que dina sa xalaat la sa xalaat la. sa xalaat la ko si parce ñëw rey te tay ko. rey yaa ngi de wala tux yàmba ba ne xuy wala dorogewul def crime am munoo xam pare toog ñu utal ko ay kayitu dof ñu naan xel mi neexul ak ainsi de suite muy doxi ay soxla munoo xam loolu yow tant nekkoo ci nekkoo ci munoo jël place kooku dama lay wax rek mhm. dañu lu ñuy parce que day wutal ko kayitam tax yi am. non non dama la dama la expliquer. ay ah, hypothèse la gis nañ ko fi. waaw mais fekkee naa lépp man. gis nañ ko fi xam dañu ray nit dugg ci kaso bi mais yaa guñ génn ñu ne. boo dañ ko xel mi neexul wala Sénégal gisuma Sénégal laa nekk mhm. Mhm. gis ku rey nit de façon cent ñu génne ko ñetti fan mu génn amul fenn ku ci am ñaari kaa wax ma ko man ñaar koo xam ne dafa tay rey nit ah ñu tëj ko kaso ay weer wala ay at bàyyi ko mu génn amul. utal ko ay kayitu dof. te xel mi neexul loolu amul. loolu amul loolu xool nii ñoom ñooy sosal seen bopp Sénégal dana am. wala tëj la quelque temps après. libéré quelque temps mooy lan quelque temps mooy ñaata. bi lu ko niñ euh, loi bi ko tëggee nii baax na nañ ko bàyyi noonu. jarul changé ñun ñoo ko xeex pour man dama demoon ECPM ensemble contre la peine de mort à Canada au Canada en pour ñu xeex ñu éradiquer peine ci àddina man ci laa bokkoon donc du nekk loo xam ni pour ñun da nga koy def ci ay caaxaan pour ñun bakkan dañ bind déjà ci constitution Sénégal la vie humaine est sacrée donc état bi amul droit ñëw de façon froide di rey nit exécuter nit Sénégal mosul rey nit à la deux fois état bi. mais ci coran bi luñ bind. pour wax wax coran il faut que tu passes à côté xoolal loo waxee Coran rek yaa moom fi moom république islamique du Sénégal du loolu du moom dañ ne république du mm-hmm. Sénégal. Coran mm-hmm. amu fi yoon Serigne Sang fi de man talibé mouride laa mais ça n'a rien à aucun lien ak Coran. bu wax waxu Coran Coran soo ko waxee rek ma d'accord ñu changé réew mi ma d'accord naa si ah, parce que ma du ma tox du ma naan. maanaam ah. soit ñu dox si charia. assumé ko assumé ko ku ku ku amul comme niñ ko waxee. waaw acca man d'accord ku faat faat la waaw. d' accord naa ci ñu voté ko. mu leer charia di dox Sénégal. waaw est d' accord leen ñu jël leen ci charia dugal ko fi. ah kañ am na am na code de la famille am na loolu. comme par exemple ñu jël peine de mort. comme charia peine de mort dafa amul sens parce que peine amul mucceen amul amul jeexital du tax mu régler dara. faat ñu faat la. surtout ñeneen ñi bëggoon a faat dinañ arrière. loolu loolu sa xalaat la. waaw mais yow amuloo monopole. wala kuy dem ba faat di nga xalaat ni ah mm, mm, ma ma kii. waaw ma ne kooku sax xalaat la sa kooku sa xalaat la yow sax xalaat du xalaatu ñeneen ñi parce que yow ñi def loolu ñi ko def ñi ko def yow gënoo leen nekk nit gënoo leen am yërmande gënoo leen ëpp yërmande ci ki nu rey ñun ñëpp ay nit la ñu. mais yow léegi da ngay plaider criminel wala qu'est-ce qui se passe ah ma tontu la. waaw waaw mais bu def raccourci nag yow nag Adja bu def mais mais j'ai l'impression que yow da ngay plaidel. non non man man euh, plaidel man du ma du ma criminel. xaw ma criminel du ma plaidel criminel non loolu amul sens toog si question yooyu. waaw maanaam bëgg leen bëgg a bëgg a damay justifier bëgg a def l'esprit de faire la loi damay juste damay justifier kenn war a day nit laa wax. mu kii rayaate bu jëkk ki. mais ki kuréel ba faat kay war nañ ko mën a faat. kooku yow yaay wax loolu yow yaay si conclusion la yow te yow monopole bi Sénégal yow doo président doo député kon mënoo wax loo xam ne dañ koy jàpp eh, mais am naa droit wax sama xalaat ah mais moom laay wax ni mooy man mi comme yow ni ngay waxee sa xalaat moo tax jubóo nañ foofu moo tax man ni bu ma bu ma wax nga bëgg yow <laughs> Alassane Seck ma bàyyi la nga tàggatoog auditeurs yi temps bi jeex na yow toj kan ma RFI bi dama ñëw <laughs> heure boo ñëwee ma bousculer la <laughs> ci sama émission da nga may te eh, man Palla léegi booba léegi Palla en tant que j'ai changé. ça fait huit ans yooyu eh, dalaloon naa la huit ans donc mu ngi noonu en tout cas daal maa ngi leen di encouragé mhm. maa ngi yi mhm. maa ngi leen yi sa kër yi mm, ñoom Fatou mm. ma quatre fois wax nañu ko <laughs> te mosuma leen gis a mosuma leen gis comme c'est une amie maintenant à moi alors que je yi euh, euh, ki dem Elisabeth Diatta mm-hmm. soo encourage Fatou Fatou Ngom sama xarit parce que moom amoon na fi à l'époque de l'enfant qui a été enlevé là ñoo ci liggéey maa ngi moom mm-hmm. ak waa Amnesty mm-hmm. xale bu baax la ku nangoo liggéey la da nga ko maa ngi leen liggéey bi bi liggéey di encouragé seen euh, seen patron. Mbagnick mm. ah, Diop xam nga xarit Assane la. Mm. demoon naa benn bés ci seen benn fête il y a di encouragé di leen ñaanal yéen it liggéey bi gën taxaw gën a ba ngeen am sax ëllëg seen télévision comme ñëpp amiin télé bi léegi mu pare mi ngi ci suuf foofu très bien <laughs> jërëjëf euh, Alassane Seck nekk secrétaire exécutif bu Ligue sénégalaise euh, des droits humains ñu koy euh, remercier bu baax a baax di remercier du Diawa Diallo bi nekkoon ci technique bi ak yéen suñu auditeurs yi ànd ak ñun ba samedi prochain 10 heures jàpp 11 heures ci beneen émission beneen thème ak beneen invité émission bi mën ngeen ko suivraat ci suñu chaîne YouTube Rewmi officiel jaa ngeen jëf